aussi euh, gis nañu que ne tournée am nañ njariñ ah. il est en train de montrer les réalisations du chef de l'État mais également prendre des engagements pour le futur bu dee pour sénégalais yi rek da war applaudir kii sëñ Modou plutôt des tournées politiques xam nga tournée économique kañ la commencé ba temps yooyu c'est le chef du gouvernement qui conduisait la politique de la nation et c'était Mamadou Dia Mhm. moo doon dugg ci àll bi boobu président de la République Senghor la woon moom mu toog nekk bitim réew kële gère réew mi bi ñu amee problème ñu supprimer poste premier ministre 70 mu ñëwaat Abdou Diouf jël ko di def ay tournée économique donc li muy def ni c'est des tournées politiques purement politiques moo tax quand on a désigné le le premier ministre comme candidat li nekkoon yoon dafa waroon démissionner de son poste de premier ministre mu nekk candidat comme Khalifa Sall comme keneen keneen ñu nekk même ligne de départ donc ce qu'ils sont en train de faire moyen état la ñu jël te wax nga ko léegi ci sa kàddu dem ba ne man damay gagner premier tour donc police suñ bëggoon lu leer kese te aussi le premier ministre sa fonction c'est de coordonner l'action du gouvernement et on pour coordonner l'action du gouvernement ce n'est pas nécessaire nga jël vingt véhicules quarante véhicules def ci carburant état du Sénégal le Sénégalais lambda bi nga xam mooy cotiser nga dugg di wër di di euh, num di lambar lambari biir Sénégal di wane dama def lii dama def lii loolu sa revenait au président de donc ñu dès qu'il a été désigné on l'avait contesté et on savait que daf ko bëgg utiliser cette casquette de PM pour faire sa campagne. mais bu loolu weesoo bu loolu weesoo. waaw su weesoo euh, ñun je pense que ils sont en fin de mandat ils sont en fin de mandat. non mais ce de faire par rapport réalisation aussi. réalisation bu ko tudd parce que xam ngeen ma gis lii ne fang du du ko jeex damay apprécier li nga xam def nañ ko lu baax. Ah. maintenant nag y a coût efficacité. am na mun na nekk mënoon na gën a ñoŋ mënoon na mais man tey su ma demee Daaru Rahman Sinthiou Tabanaani amuñu ndox bu ñu naan amuñu courant amuñu yoon ñooñu soo leen waxee dugal nañ quarante ñaata mille milliards ñooñu dañ la wax du dëgg te yow da ngay suivre samay statut donc j'entre dans le Sénégal des profondeurs le Sénégal. mais le Sénégal des profondeurs doit beaucoup à Macky xam ne mën na matale fépp le tour du Sénégal. yéen PS yéen a fi njëkkoon a nekk. ñoo fi mais ñun qu'est-ce que vous avez ah, pour le Sénégal des profondeurs. quest ñun ñoo nekkoon monsieur Moulay madame monsieur Forage madame Moulay Bamba Challenge. bi ñu ñaari forage am na lu ñu def. Mm-hmm. mais li des a waaw il a beaucoup mm-hmm. mais li des moo gën a bëri parce man wax naa la damay dem. ci gox goxaan yi il reste beaucoup par rapport ak li ma la wax coût bi ngay xool. li ñu waroon def le Sénégal ne s'arrête pas à Thiès ne s'arrête pas à Dakar ne s'arrête pas à Fandène quelque comme ça. Mm-hmm. ni ma la ko wax tuddee naa la fi ay dëkk soo fa demee nga ne ne état du Sénégal existe nga dem Boronkunda Kanuma il se soigne en Gambie suñu buggee naan amuñu ndox donc ñun li ñu wax tey ce qu'il fallait faire c'est que Amadou Ba démissionne de son poste de premier ministre. Mm-hmm. nekk candidat comme ñeneen ñi. sur la même ligne de départ mu doon def tournéem économie bi il a des gouverneurs il a des préfets il a des renseignements généraux bët bu set dañ koy defal bulletin projet yi ñu def dina xam ndax dox na mbala doxul chaque fois conseil des ministres c'est le président qui le président <laughs> ni ma la waxee tourner le le premier ministre son rôle c'est de coordonner l'action du gouvernement mais ne pas aller sur le terrain en train de faire la politique il est candidat comme les économique mais plutôt une tournée politique pour l'élection présidentielle de 2024